Mbadiar TV Mbadiar seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 dal ci kaw ca kanam abonné te bés kolos bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Madiar TV daal gaw ca kanam yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu ñu ngi fi nji saturé tey nag ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci mois de mai 2024 xam ngeen ne tabaarakallahu nag tey mooy ziar bu mag bi nga xam ne kenn du ko laajte ndax allah gis ngeen njaboot gi bàyyi ko fu ne ci réew mi ak bitim réew. waaw soxna liggéey bi de waaw naka liggéey bi nag. ah mu mel ne Kébé Kébé yi tey ak famille Kébé Kébé yëpp Ndiaye Sa Touré yaakaar naa njóobeen yi waxuñu dara tey de. ñeneen bëgg xam. sant Diop ak Maguette yi sant Guèye moom lu ñu wax. Maguette yi sant Guèye tey waxatuñu dara de ah. ah mais xanaa Guèye nga sant yow. mais kontaan nga bu baax de. mais lan ngay ñaanal waa Ndiaye. aha aha. tey suñu goro daal yaakaar naa ne tey macha allah. waaw tey moom Babacar macha allah. yaakaar naa ne jigéen ñi seen taxawaay rafet na ak xale yu góor yi. macha allah ñëpp taxaw nañ lañ mhm. war a taxawee. waaw macha allah ñëpp moom tabaarakallaahu mais li lan la. lii pour lan la. lii pour nii toggi daaw yu neex yi aawa yoo ko toogoon wala ñaareel yi. aaw ah, ñen ñoo ko toogoon. aawa ci moom. Ah. yi moom. dama yaakaar la nag. kon tabaarakallaa rek ñu ci xéwal allah macha allah ñu ci xéwal yi yaakaar naa ne ñëpp kontaan na yi. lépp dara waralu ko nag lépp pour rek ganale ganiyan salaamaaleykum ah dafa mel ne yéen a ngi ci xéwal yi de aha ah. fan ngeen ci toll nii aha ah. yéen a ngi ci yéen a ngi ci maanaam togg dafa mel ne xéwal mat na de aha ah. njóobeen yi Ajá. Ajá. trop trop trop ah trop trop ah. waaw validé na suñu xol sedd na. ñi sant Kébé nag. waaw ah, li ñu doon séntu lépp daal moom. waaw waaw ah, yàlla mujj na si def xéewal ba daal alhamdulilah. yow lan nga wax xale yu góor yi nga xam ne tabaarakallaahu ñu ngi ci liggéey bi. ak ñi lay seetaan fi ñu toll en direct. Ah, rek suñu mhm. sa yëf yaa ko mën a jagal yaa ko mën a defal. Mhm. ku si nekkul tamit daal ñun sant rek waaw ñi si nekk nag a fas. gën a góorgóorlu Balla Kébé. Balla Kébé ah. waaw ah, loolu am na solo ah. kon tabarakallah. soxna si dafa mel ni yaa ngi ci xéwal yi de. waaw maa ngi ah, si xéwal yi. xam sa tur. man waa Fatou man togg yi Kébé Kébé rek laa fi gis gisuma ko sant Lodé wala Silla. Ah, ah dañ ko gën a bëgg wala. loolu nag bu ñuy togg dañ koy lekk moo tax. léegi ñu bëgg leen a toggal ba pare su ñëwee jox leen ah mais ci nii daal man kebe kebe rek laa gis. muy góor ah. kebe kebe ñoom liggéey rek la ñuy def. waaw buñ paree jox gars kontaan si ñëw si ziar bi. ah di ñaan mhm. yàlla ñu koy def ak mu ne rek. Mhm. ndax sunu dëkku maam la. Mhm. ndax dëkk boo xam boo fa demee yóbbu jël fa yiw. ah wax dëgg yàlla ëpp naa bañ a def. yàlla nañ koy mu ne. yàlla may ñu wér. te yàlla def si dem dëkk bi jàmm. def fi salaam def fi rahma. def fi najaar. fàttali ñu sa tur. Ndeye Koumba Diagne. Ndeye Koumba Diagne Ndakaaru. neex a gane ji Ndakaaru ah. di sant Maguette Masarata Faye. ah te Tindieye Saturé. wante bu dee li jotaay bi am am nanu téeméeri kaamil ak fukk ak ñett ak bii ñu ko muy téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent yàlla na jotal yàlla na yàlla jotal ko ci maam yi tëdd fii maam Ablaay Fat Saale bi sañc dëkk bi ak mbokki doomi bàyyi yi fi nekk loon ak maam ban ak fu maam tëddi ca cosaanoo fi fu bàyyi tëddi ca cosaanoo fi yal na yàlla fu jullit nekk yal na yàlla jotal ci barke yonent bi sallallahu wa sallam kon alxuraan ji téeméeri kaamil am nan ko ak fukk ak ñeent bu dee ci wàlli tur yi tur bu ñuy wax xasbuna allahu wakil am nañ ci juróom junni yaa latiif am nañ téeméeri junni ak fukki junni ak ñeenti junni yu tofal téeméer ak fukk ak benn salaam am nañ ci fanweeri junni ak juróom ñeenti junni yu tofal téeméer ak fukk ak benn yaa am nañ ci junni astaghfirullah am nañ ci téeméeri junni ak ñetti junni ak ñeenti junni ak ñaari téeméer laa ilaha illallah am nañ ci ñeen fukki junni ak juróom ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar salaatu ala nabi am nañ ci fukki junni ak ñaar salaatul fatiha am nañ ci fukki junni ak ñett sóoratul ixlaas am nañ ci ñaar fukki junni ak ñeenti junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett alhamdulillah am nañ ci fukki junni ak ñaar bismillahi rahmaani rahimi am nañ ci juróomi junni fukki junni ak juróom ak téeméer ak juróom fukk ak juróom loolu mooy dog yi nga xam ne am nañ ko ci boole ko ak kaamil yooyu yëpp nag yàlla na yàlla sëmbërtal ko ci maam yi ñu koy ñaanal ak baay yi ñu ñaanal ak jullit ñi yëpp alxaaji Modu Kebe waa këram lii fii leer ci ñoom la jaar nga ne wax dëgg yàlla fa tabaarakallah Abdou Fatah na yàlla diigal ko ci biir diigal ko ci biir yërmande ko moom moo si nu doon istéril courage yàlla ni ni dëkk bi leer yàlla na ko lépp leer ci barke yonente wa sallam ci noonu nag ne wàññi dellu ci nuyu ci tënk rek nag lañ koy nuyu nañu biy tënk mooy ñi ñoo fi nuyu ñi fi dëkk ñëpp ak ñi fi jikk te ñooñu doo fi lay ñi fi dëkk ak ñi fi jikk seetee ci nag seetee ci nag sunu kilifa gi di soñi Mahamadan ñu tuddee ko sunu baay Mahamadan muy surtout maam Masamba Mbàkke pour mag ñi nañu melawoo xaajo mbaru na ngi jooje ka ko wax surtout maam rawaan bokk wax na ko fanaan fii na maam Masamba Mbàkke maam Masamba Mbàkke sëñ bi xooloon maam Masamba Mbacke sama dafa jëm Ndar dem ba tolloo Faal ca maam Rawaan boo këram ne fii de amoon naa fi mbokk taalibe bu ñuy wax Rawaan seen xale yi ci taafe ñett mu laaj leen ndax xale yi ne ko góor gaa ngi ci biir boo këram mu ne ko demal ne ne ko sa mbokkum taalibe mu ñuy wax Masamba Mbacke moo lay nuyu maam rawaan fi mu toog ci tukkal bi mu ne leen buddu leen ma ñambi ji li tàmbalee fii ma toog ba ca ñett buddu leen ma ñambi ba nga xam nga oto bi dana xaj ñu buddi ñambi ba yegg ba yegg ca ñett ñëw na ko yegg mu ne leen dem leen bu ngeen demee ngeen dagg salaat sax mu dagg salaat sa dugub kuy ñëw ne ko pare nañ mu dem na leen na leen ko ne ñëwal oto samba raama ko lu ko ca mam raw ñu nuyoo ca saafonte mama samba ne ka waay sëñ bi lii lii lii kat lii kat lii kat niru na yàq mam rawaan ne ko bu waxati loolu bu doon xaaji Malik nii laa ko koy defee kon Alaaji te lii saxaar bu ko mënoon yi di jóge ci dana koy Abdou Karim bu mënoon a wër saxaar ci dëkk dana ko fii xam nañ pas-pasam xam nañ yéeneem xam nañ li muy def ministre kooku moo ko wax sëriñ Bado yaa ngi seen biir ñooy sama man ah sëñ Baye Seck noo ngi leen di teg ci seetlu yooyu yéen a génnee na yàlla def barki démb li mu jël waxante daf yow maa nga lay ñaan bu julli foo toll damaa bëgg foo toll nga di ma woo. di siyaar ñëpp ñi fi dëkk ak ñi fi dikk. ak yàlla yàlla dàqal nu saytaane dindul nu saytaane la ma waxoon démb bi julli jumaa ba pare. te nag léeg xaw a doy waar. ndax foo nga asalaamaaleykum asalaamaaleykum joxoon te loxo saa ko ah? ah te déggoo mën jaar jaar na seetaan nag ah dëgg salaam boobu bis ba ñu ñu joxante muy guru seen borom boo xam ne julli li ñuy foor foor ñaari tur ñaari tur suñu borom yi bii moo koy tijji bii moo koy tijji allahu akbar Assalamualaikum. aleykum buñ demee bay dugg àjjana sax udxuluha bi salaamin aminin ah jërëjëf imaamu ratib ñu jëbal kàddu gi ni mu ko daan defe rek joxe cër macha allah li إنهم يرونه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا baax na ci lu réew lu réer ñaata yoon 33 suba ak ngoon 33 suba ak ngoon loolu lan la koy wax dafa yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yarawnahu ba'idan wa narahu qariba 33 suba ak ngoon bismillahi rahmani rahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatuhu ñu bi Serigne Muhammadan ibnu Cheikh Mustafa ibnu Cheikh Massamba rekk Serigne Touba bi saxoon ci moom rek lu bind moo commencé lépp ak am lu may rek li ma bu dee ci wàllu mbokk ñaar yoon lañu bokk ndax sama na si yaay ndax baayam ak ki jur sama baay ki jur sama yaay ñoo ko suñu bay ba saala waaye nag sëriñ bi sëriñ bi ma bay moo suñ jëy bay ba saala ñu bokk ana xam te sëriñ bi jëy ma bay jëkk moo ko suñu baay kon foofu baay laa ci man na yaay bi ma am léegi kon mag la ci mag mag laa ci defee li may leeral li may nopp lu ci rek ni sax loolu ku xam xam ne fii séeréer ko woon tey waaye am ma la waxoon Moustapha yi ci di wax euh, waaye bi jaral mbokk gi jaral sama njaboot sax xam naa ne ñun bu ñu gën a ñëw naan dañ nekk waaye man yëguma ko ndax li may doxuma ko jàng euh, dëkk bi ci boppam toujours day def mu dikkee rek ay leeral yu mu leeral ndax léeg-léeg day am loo xam ne nit daw may wax ne man de xaw na ko kon leeral yooyu day baax dëkk bi dañoo toll fi rek tey ci moomoon dëkk bi dafa wax sama nijaay Maxtaar Kébé moo moomoon dëkk bi ma yoral ko ko moom moom ma yoral ko Kébé ndëkk dikk fii bàyyi As ñaari dëkk yëpp moo ko waral te ba mu wàccee liggéey wàcce naa ci Kébé ndëkk ah, di balu di leen baal ak ku ma ci def lu bỏ jiital mbooloo nag ma ko jégal maa ngi di jégal ñëpp surtout que mbokk ngeen seet ngeen koy def ba ñu waxtaanaatee ñu dellu tegaat ko sama loxo ana bàyyi dafa nijaaya jóobu kebe ba ñu seetee moom ma ndax dañoo wax asam waaye asal moom maas yàlla dogal ñu ne kon jóobu moo ko moom mooy borom dëkk bi xalifa li ma Mamadou Lamine Sall. Euh, Serigne Lamine Sall ibni Sall Bache ne léegi tabarakallahu ñëwoon fekke si waar ren ma député tegaat nañ am lu may leeral ba ci dëkk bi mu gën a leer rek ndax léeg-léeg am lu am am na xam sëñ bi rek lay fi bi ànd ak actuellement man bay tey ñu sama baay ñu bokk fii ba sëriñ bi lay mu may tey bi moom dëkk bi ak yéen waaye ana bàyyi ko mu dem ca la tuddewoon sëriñ bi ba mu demee Kébé neex ko ki jëkk moom ànd ak di doomi suñu Ibrahima Fall Sall la muy Serigne Ndiaga Kébé mi nga xam ne moo jur bàyyi ak Kébé mi jur sama yaay ba mu ko ko moom ci jaw kër ma jëyee fekk Cheikh Ibra Fall daa sa ñëw fii Serigne Ibrahima Fall teewal ko muy dox ba fekk jaw kër ko foo bàyyi ko mu ne ko jëyee mu ne kuy sa bàyyi mu ne mu ne ko toogal fi ma di la juyal ak mu nekk fa ba am fa doom ñuy wax Cheikh Kébé mu tudde ko Cheikh Ibrahima Fall mooy Cheikh yi jaay oto ca Touba Baaya ñu jëli ko sëñ Cheikh daal fi Sala ñu euh, euh, ñu ne ko tey bañ demee di ko jëli Cheikh bi at na fi nekk daañu la coono moom maa ci jëli boobu njabootu sëriñ ngir daal fi Sala ñëpp kenn sopp ci kër muy muy bàyyi kii muy sama nijaay ñoom kenn sopp ci kër ci jàng yi ñoom ñëpp ñu dem jàngi alxuraan yàlla dogal ba loola amee maam aada Batoor ak Nabi Batoor ak Noor Batoor ñoo doon doomu jiit lay sëriñ lay bay fi waa gannaaw kat doom yi nga xam ne ñoom ñoom la juróom nekkuñu ñoom ñi doomu jiit yi ñooy moom dëkk maam aale moom ko ba jërëjëf jox ko na jaay jege na jaay jege moom ko ba jërëjëf jox ko maam na jaay ma du fari bi fi na jaay ma du fari jëlee la ko sama na jaay kaar so lañ dee gàlfe sall loola moom am ma ne leen war war boobu mag ñi rafetal boobu ñu doon def nan ko sàmm bu ko kenn laal ñu ko defee woon nañ ko ñu defee mu géej loolu mu andi njóobu kebe ne tey ci ñoom ñu la bokk वो कुछ भी वीरमोमुंदिकिदु वीरकुचिकुयान ना बता समय हो निकले ये भी मुझे बोलते कि कुछ ने को चल चलो हो पक्का बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो या लगे तो मरी तो बल ये दहोवेल वाय बको नायु am na yëpp lu ma jot na koy bàtteekoo ci siyaar xoolal ma lii sëñ Ibra te ko ay yàgg dañ ko sonaloon ba yóbbu ko hôpital ba rey nañ rey nañ sax fa sax. su waa kër Modou Kébé de ñu leen xamaloon woon nii leen dëkk bii su ngeen ci màggee seen bàyyi màggee moom ko wala bu ngeen ci màggee moom ko tawaaxe bi ñu am ba def walaaka ñu ko fi am déet. njóobu bi ñu ne yàlla dëkk bi te du fi ñëw mukk du fi dëkk joxe nañ leen ci junni léegi tey njabootam ku yéegee ne seen bàyyi moom dëkk bi bu ñu fi ñëw bu ñu fi dëkk waaye dañuy dañuy participer ci dëkk kon bu ci bokk bu la ci boole waaye bu ci bokk bu leen ci boole sa bopp day dégg. lu ma sori ci wax bi ndax wóorul leneen lu ci des bu fekkee sëñ Dan ak sëñ Lamine Sall am na ci kàddu yi ñuy wax suñ ko wax ba noppi. diggante nit ak mbokk ba ba diggante ñaar ñi wéeroo bu mu ko génn na ci tàmbalee da ci yem te ñenn ci biir kër yi nañ ñu. di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, noo ngi siyaare mu ngi fi yii fi nekk waaye nag siyaar bi ñoom ko ci nga tàmbalee nag ah, nga xam ne mooy imaamu mooy imaamu mooy fa jëkkeen wax ma ngi leen di nuyu si Moustapha ñu ngi leen di siyaare di wax am mage daal boo ko jàpp moom alaaj njëkk sekk mi nga xam ne moo daan àndal fii mu di lu jiite moom itam démb eh, sëñ Amar rakkam soxnaam dafa wàcc liggéey moom mu nekk di ko taxawu ba yaram wax xam nga yaramu mag mu nekkul dara waaye xol bi moom daal wax na ni daal nee moom moom gën a ëtt njëriñ bi tabaraka mi ngi nee nañ buñ ñaan yàlla ko sàmbaram nangu kenn ko ne noo ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di balaax ñëpp nag di balaax ñëpp di jéggulu yi ci kàddu yi kàddu yi li tax mu di ko ci ni mooy sant yàlla ngeen baal na sëriñ si waaye amoon nan góor bu baax bu ma saan toog di waxtaan day toog ba yàgg mu ne ñun wala mu amum ndaje dana nun ñëpp nañ wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ba mu ñetti yoon ma a nan sant yàlla bu baax ndaxte mbokkum jullit mu toog di xool mbokkum jullitam te mbégte rek a tax mu xool ko ne loola rek war na caa sant yàlla rawatina nag muy sunu toogaayu tey jii e, ñaari jëmm yi nga xam ne tey ñooy suñuy kilifa muy sëñ Mabatan Mbacke ak sëñ yi ñoo ni sàll nii nega ni si daaw yàllaa leen di togge woon ni si ren jël si nañu yàlla nañ fi yàgg ñëw fekk na fi te lu ñu ñaanal yàlla ko fi yàlla nangu e, sëriñ Lamine Sall daaw am na lu mu waxoon fii yàlla dogal na la waxoon nit defaat na ko ndax moom daaw bi mu ñëwee fii yàgg na wax nag dama daa jóge fii rek jaar Louga siyaare ko mu ne Ibrahima foo jóge ma ne ko damaa demoon njiitu sunu benn siyaare mu ne Ibrahima booy bu ngeen di bëggatee siyaare te ngeen ma ko wax bu ngeen ma ko waxee day dinaa ciy ñëw ma ne ko ci lu wóor waaye daaw ma walanteer wax ko mu dagg yitteem yëpp ne moom borom yitte la daaw bi mu dikkee fii it ma ñu xam ma xamal ko ne ko nag sa maam ñaxa mi nga xam ne moo maam ma yoro sàll mii meññi Sëriñ Abbas mi ngi ci armée yi te maam ma yoro benn jigéen rek la am bu mu bokkal ndey muy maam ñaxa mooy maam yi Ibra Kebe ñoom ñii moo jur tabara waaw mooy say kebe maam ñaxa moo jur soxna tabara samp tabara samp jur soxna say kebe say kebe ne ñi ibrahima kebe ñoom kon ay jarbaatam leen xel mu ne nag ibrahima xamewuma ko woon nii waaye bu soobee yàlla buñ ca àggatee damay def sama publicité bopp xam ne leen yii ci siyaar bi laa bokk te nam ko waxee woon it bi ñu keroog bi ñu bi ñu jàppee bisu siyaar bi ma woo ko téléphone wax ko ba ni ko sa siyaar bi ñëw na mu ne kooku kay siyaar bi jot na mu ne ma kooku sama siyaar dugg na ci groupe bu siyaar yi njiy bii def déclaration ne ma incha allah bu mu bu siyaar ba dikkee dinaa ñëw bi ma jógee àll ñibbi si sama kër it ñetti fan laa fa am woo ko ma ma ko woowee mu ne ma ah siyaar bi daa jege ma ne ko la 27 la date bi du samedi bi mujj ci mois de janvier incha allah buñ ci àggee mooy datu siyaal bi. na ñëw ñu ngi nii toog wax ji du bari lii rek laa leen bëggoon wax yi. xam ne daal suñu suñu nii daal moom nee na bi kenn ëppaliwu ko ci te ñaanatu koo tardé ndéem ñu ngi koy ban kon yàlla na ko yàlla defal ak jàppandal ba fu siyaal bi dikkee mu wér. wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بكي جلدي بكي تالبي بكي bokki نيجي yi ñu ci lañu bokk mooy islaam mu andi nu fi bàyyi nu fi te sunu njariñ nit yi bàyyiwuñ kenn nag ci ñu fi teew ak bokk sunu xarit sëriñ Mahmoudan Mbacké ibnu Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Massamba Mbacké di ko siyaare bu baax di nuyu Serigne Al Amin Sall di ko siyaare moom sëriñ bu baax bi mu andal di ko xamal ne ko ci nga te di nga ci bokke yàgg na waaye dabe nag day am nangul nañ la ko di gi yéen ci waxi sayyidina umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ginnaaw buñ santee sun mbokk yi sant sek di waa mam maam ban sek. Abdoulaye Banda Seck abdullahi fasala abdullahi ñaari abdullahi fofu foofu dem abdullahi Abdoulaye Banda Seck Abdoulaye Farsala Kébé ñoo fi nekk dama ci bañ a sor ci histoire bi ci kër historique bi ndax ñu bari xam naan waaye ñu koy nuyu mom ak sëñ Bass mi mu ak njabot gam bàyyi ginnaaw waaye di nuyu al imam mang koy wax legui nako nam nañ la xana do genn dekk bi mang koy nuyu bu baax ko al imam suma la nuyu mang ngi nuyu say imam mom yep da defena wa dekk bepp say imam mom lañ ko massa a ak yow julli rek kala ko ko xam rek sa mbokk ñu teewlu tout rek ko bokkal sa bop nak bu ngeen bokku di def dara mëno ko genn ci sa bop bop sa mbokk min ki nga bokkal bu bëyut sa mu jaree da leen boole moo tax olof tënk ko ci ne ko xam sa mbokka ci lan ko xam ko bokkal nak sa boppa doonte bokku len def dara bi bi wax léegi te Hamziya Mouhamadul Basayri dëkkul fi ab nar la ab arab la ma nga dekk ci Iraq ci dekk ba wax baghdad di borom may yalla waye mo bi nga tàmbalee ci kayfa tarqa رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناه تلاي أجنا إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء وهي قد نقول بق لقد لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء بأيدك مقم أسكن ملك نسب تحسب العلا بحلاه خلدتها نجومها الجزار فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء تخلص له دفو بغا ген تي بن بار دوج تي بن لولا بار عربي تودي تخلص بو ديمي عربي بن مسانا داني تامبالي تي اي جنت ولي تامبالي تي جيجين ولا ني تامبالي تي ولا يطلع لنا بدي نتحمس من ماي دني جل نلور لم ينيح لي ما كنا قل بمن النسب تحسب على بحلاه خلدت نجومها الجوزاء وكوكب أنصابنا ويبني فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء ليلة المولد التي كان للدين سرور بيومه وسد يقتل بكرة كويه فس قصد الفوق القاملة ما كان يبكي وي سرعة التخلص بكرة القاملة دي من ليرة دارا ba may intéressé wu nga daal may mbas Ousseynou nag loolu la doon bañ moo tax mu dugg ci domaine bi ba yàgg mu daal di andi benn siba daal di jaar ci borom loolu bu dugg ci way ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon askan lu am solo mo moo nu dajale fii wolof yi bala maa ñëw ci ahadith ya aya qur'aniya wolof njaay daa am solo mooy xikam buñ ne fulaanun hakimun moy kooku dafa kocc ci barma kocc ci barma daan fekk lu yaatu mu teunk lako ci bir bu gatt xam nga tax am mbokk mata fon sa yom da cee nekk bi ngay am bay tëyoo ko bi ngay am day te ko bi ngay sant bi ngay sant tëyoo wala tax nga bëgg ci tay tay lu ci andu lu ci bokul fa yaax tabir man yaax tabir comme neex na xalaat kenn ci ñun tànnut ne day sant kebe wala day sant Njaay wala day sant Jóob wala day sant sek kon yow lolu dépense na la ki ci doon sa yaay ki ci sa baay dépensé na la waaye léegi nit naka lay fekk lu ne léegi susu ko taxu ko faa ne ñu boole ko ci mu bëgg ko yàq loolu mooy olof jaay inna min al xikmati la sax léeg nga wax baat boo xam ne dafay convaincre moo tax sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon te mooy xadis boo xam ne bu wér la bu mu ne xadis bu wér la nag tàyyi na maa dugg ci tawaatur ak muttasil ak yépp waaye bu ñu nee bu wér la daal mooy bu ñu doy loola ana arrahmaanu la suñu borom wax nee na man maay arrahmaan arrahmaan mooy lan adduna ci système bi may def ni lay dawee arrahmaan nii la addunay def bis bu ñu demee arrahim bëgg mu ñëw day sens contraire moo tax zilzala boobu ngeen dégg ak xaaqa qaari'a ak lépp moteur bu doon dox ba yàgg mu arrêté la arrahman nag ki lay daw nii muy benn rythme bu bu bu positif suñ demee ba suñu borom bëgg koo dindi nag zilzala bi mooy li doon daw xiir def nii buñ ko bëggee tourné waat defaat nii bur bi dana am al qaari'a bur bi dana am idaa zulzilati bur bi dana am isaa waqaatil waaqaatu parce que li tax moteur bi dafa tag bi ñu demee ba adduna bi nar a yàqu moteur bi day toj parce que change bi mu doon demee dañu bëgg a changé waat arrahim daal di monté wu nag arrahman dem arrahman mooy kuy yërëm képp ku mënti doon ci adduna ya xam gëm nga ko yaa xam weddi nga ko loo mën def rek mooy sa rahman misaal ma mooy mooy président de la république mo xam wateel nga ko mo xam wateeloo ko dana utal courage sa dëkk dana andi ndox ta doone ndox bi mo fi andi kan ñi ma wateeloo na ko moom déedéet yàlla dane may tam sama xéewal yi ku bind rek ya ko moom ya xam wote lu ma ya xam ar rahman ar rahim nak bu jote day ay militant lay recevoir par ben yeen ñima wote lon kay ma teral len motax tax ñi woteel yalla seen teranga xajul fi suma ma soo dugg ci benn dem dugal ci ya ak rububiyya ar rabb moy ban asman ak suuf li fi andi lepp yonam nit ku ci ku góorgóorlu yaa ko mom jant be suuf seeg ndox meek yëpp yéefal bi sax bu la gënee ëpp la may bu la gënee sonn ëpp la courant lépp lu mu la gën a def ëpp na ko ndax loolu mooy mi ngi ci baatub bi mooy lu yàlla moom la loo xam ne wu ko te ku góor góor mu jox la moo tax tubaab yi dem ba am ay ngànnaay yuñ amul oto yuñ amul parce que mooy ci rabbu la yàlla mi moom nee na man daal maa moom lii te li leen ci jotale mooy ngeen wut ay xel yu ngeen mën a loo ba mën a jëriñoo lii ku kanaan lii si am ndox ku tàpp amul weñ ku def ngànnaay man man sa morom moy ar rububiyya uluhiyya nag mooy yàlla baaxale nga di julit xiirtal la ci nga di ko jaamu boo ko nga tumal ko bo ligé mo and ko tabal àjjana ko moy uluhiyya bokkul moo tax baatu rab bu yéegal yi nangul nañ ko te nak wuñ ila kon naan rabb samawat wala ardi kon ila ku leen di defal li ni nak yalla mais yàlla moom nag joxuñu ko tiram ñak gi ñàkk ñak jox yalla tiram bu rahim dikki rek lañ koy reccu mais fi ñi ngi ki raxmaan ñëpp ci bokk ya moo ab yéefar <laughs> bu ab jullit dee na ñaan yàlla ab yéefar it na ko ñaan yàlla ci mais mënu koo tee amul ndox mënu koo tee développé mënu koo tee amul wata parce que loolu ci rugóo bi yéen a takkee da koo sababu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rawatina nag yéen ñi nga xam ne xam ngeen bay jaar ma jaar bu baax ci faj bi nga xam ne mu ngi koy faj fajub aada ak cosaan waaye xam ngeen koy ci wàllu ñaan yi nga xam ne daf koy falal di ci dimbali doomu aadama yi moom bay jaar ma jaar nag mooy yëgle ni que képp koo xam ne amee nga jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndoxum siti ku rëbët jàngoroy kajoor moom Mbaye Ndiaye Madiane nag mu ngi leen di yëgal ni ku ci amee yooyu yëpp nag bul jaaxle ñëwal yàlla may na ko ci bu baax baax moom nag xam ngeen ni ku ko soxla da nga koy fekk foofee ca Mbadiar wala nga woo ko 77 654 53 72 77 654 53 72 ñi nga xamne aussi dañu amé far wala jëk rob ak ñi nga xamne aussi bëgg nañoo xam seen avenir ëlëk ñom ñëpp nak nañu dem seeti ki nga xamne mom may mooy Mbaye Ndiaye Madiar ñu rañé ko lool nak ci taxwayam ak pass pasam ngir jàppale doomu adam yi Mbaye jaay Madiar moma nak mo leen di yëgal ni ku ko ci soxla ku ne rek mën nga ko woo ci numéro yi wala nga fekk ko fofé ci Madiar wala bu ngeen nekké ci diwanu Géewul ak liko wër mën ngeen ka fa xaar altina bu jot mu ngi fofu mom Mbaye jaay Madiar Mbadiar TV Mbadiar seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala siyaar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement wooteel 76 dal ci kaw ca kanam abonné te bés cloche bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Médar TV daal kaw ca kanam